Ah, jërëjëf ah, once more mbokk yi nuyu leen sant leen gërëm leen bu baax a ah, ci time bi comme nag épisode bi is coming to an end ñu sant everybody ñi nga xam ne ñu ngi jël time out rek di follow this very interesting story bi nga xam ne involve na Cheikh Amat Ceesay ak faatu Jawo ñu xamee ko ci F Jawo F Jawo nag ñu ngi nii toog ak moom F Jawo épisode bi ñëw na to an end léegi ndax there is any regret bi nga xam ne am nga ko yaa alhamdulilah léegi moom jeex na coow lii yëpp coow coow lii yëpp jeex na léegi regret bu ma lifin rek moo lu ma dugal si Cheikh loolu moom rëccu naa ko ak lu ma encourage ba ma bàyyi sama famille bi my friends ma dem ànd ak moom loolu laa rëccu ok tey nag dem nga si kaadi ah, loo uti woon si kaadi waaw lu claim ne loolu la ma jox loolu laa delloo woon <coughs> so everything la delloo after gaa ñu ne moom dina ñëw sign I don't know if ñëw na sign but then man ëllëg dama war a dem sign man it. ok um, lum claim on is 300 plus thousand naka la demee ak lan lan nga delloo. waaw kaadi bi lu wax ma delloo rek laa delloo moo nekk 15000 dawri bu mu wax ñaari xar ak benn bi plus 5000 laptop bu wax. ten thousand and twenty four thousand nine hundred loolu la ak yére yu mu wax tamit delloo naa ko everything. yére yi ah, ñaata yére la. waaw mu ne twelve twelve yére laa ko jox. twelve yére yaa ngi ko fii si kër gi. waaw kër ma joxoon si suma birthday la loolu laa ko delloo. bu la ko doon jox yéen a ngi sëy ndax sëyu leen ma doon jox yére suma birthday bi was thirty first May. te Malaysia ñu ngi um, si 16 August soo fekk si yëgul. so time boobu yéen a ngi nekk in relationship la la may loolu. waaw fekk ñu ngi nekk si relationship. so ñu ask la pour nga delloo yëre yooyu. waaw loolu la gars yi wax que Cheikh dafa wax ne daf ma jox yére yëre and xaw ma 12 yëre yooyu nu ñëwee ba den man suma xel bi si lu ma jox suma bedde bi loolu la dem dem ma jox ko ko daf ko neexoon mu jox ma ko so mu buggaat ko ma delloo ko ko. comme mu ngee ne moom su jëree yéree mi taati neen laay def like moom bu ma doon gis taati neen laa doon def so let's see what happen so xaalis bi ñaata la um, bi nga delloo because um, delloo nga uh, xaalis si can bi mm, all together dafay nekk 54900 54900 brégal ñu ko down bi um, mu ne 24900 la ma fay suma tuition fii bi I don't know yeneen yu si des because code ba accumulate everything ñu jox leen ñaari xar ak béy tamit loolu lañ leen jox ak laptop bu fi asi woon waaw um, léegi loolu xappun na ndax am um, sa trust indi the um, Kadi court is there ndax am amuloo trust si seen judgment bi awma trust si seen judgment bi parce que man dama uh, clarify Cheikh lu ma jox before marriage ak lu ma jox si biir sëy ak loo xamante ne man jëluma ko si Cheikh dañ ñee def seen judgement si gëm ne Cheikh asina loolu yëpp gars yi war a wax Cheikh mu provide evidence ne dafa asil all those things ba gars yi ñëw just judgement like that. so in other words you are disappointed. yeah I am very disappointed. Um, ndax um, right now forgive nga Cheikh former husband. <laughs> loolu man nit rek la yàlla sax soo ko tooñee mu baalal la so who am I not to forgive baalal naa ko aha waaw yow nag waxtaan nañu yow nga ñu ne am noboon nga see ak yu demee noonu mhm. ndax am still am di nga mun a love another man well yàlla baax na Cheikh daal daf ma teach a lesson seriously like musuma xam ne lay foog ne nit bu mel nii Cheikh mu ngi am si àdduna so I've never seen anyone like Cheikh so pour ma xool beneen góor ah <laughs> xam naa dina miiti de <laughs> yaa dafay miiti waxuma du am nag waaye dina miiti tamit so right now um, what are you focused on sa studies alone yeah my studies alone that's all and work too again um, ñu ngi la doon um uh, ñu ngi cast heavy blame on you uh, um, dégg sa side of the story Ah, but gis nañ ne bu ñu déggee si side of the story um, equation bi ah, balance na a little bit um, loo am pour wax ñi nga xam ne ah, daal um, version ni Cheikh bi la gaay gëm of the story. like ñooñu duma leen blame parce que Cheikh dafa neex a gëm kuy wax ba di waat si yàlla moom si doon man la sax dinaa ko gëm parce que dafa waat si yàlla te waat yu métti la doon waat so I'm not blaming them ba pare Cheikh rek moo doon wax and man musumaay tontu. so it's not their fault. waaw um, boo demee si kaadi bi uh, proceedings si naka la fa demee at that time uh, because am na ñu nekk di joxe narration bi ne Seex moo doon def most of the talking whilst yow uh, you were keeping quiet for most of the time naka la fa demee at that time. suñ first kaadi um, case bi was 16 um, October bi boobu gars yi de ma lette lu fa ase ma divorce laa ne lete cheikh moom mu ne man su ma ko dellooyee lu ma ko lu moom lu ma jox yëpp dina ma may suma baat denkaari bi mu lete ma cheikh lan man lan laasi si wax ma ne in fa wa lu mu def sa moo bëriwul ndax ma wax ñaata la ma delloo ko ko cheikh si la jóg muy count man lu mu count sax dafa bëri mënuma koy waxaat soo si leen start di verify ndax jox na ma ko wala joxut ma ko ma verify all those things soo gaa ñu ne suñ nekk si yaareen bi gaa yi dinañ dogal suñ diggante soo dee ma buñ demee gaa yi leen just let oo gaa yi ma oo ñu ne ma ne ndax I have anything to say parce que I was hot cheikh lu mooy jël suma nataal muy def these false allegations against me si media bi I told ne kaari bi parce que um, before may delluwaat si kaari bi dama demaat foofu si gaa yi bi ma wax ak moom mu ne ma can keep all this evidence soo ñëwaatee si code bi nga wane ko boo den man bu ma ko waxee gars yi dañ wax ne seen yoon nekku si euh, lu Cheikh post si media bi loolu gars seen affaire nekku si gars yi laajte moom mu ne fu mu taxaw foofu la taxaw still gars yi doogaa suñ diggante that was just it so donc mu bëgg a explain ne am um, seen final am um, sitting bi am um, yow bàyyiñ la pour nga explain ndax am nga the court pour ñu vérifier am evidence yu xam ne Cheikh moom la provide yaa gars buñ dogalee suñ diggante ba pare man dama ekkati suma loxo bi pour ma wax ba den gars yi dem ma wax ne du ma wax ma bàyyi ko rek xëy am suma papa mu ne am na ko te dina ko fay den ma bàyyi rek ma bàyyee ko yàlla dogali yàlla àtte ah, yàlla moo gën daal so foog nga ne code bi dañ la surprise um, I can put yi that way too ok euh, finally rek euh, looy am pour euh, wax pour fellow am jigéen ñi nga xam ne ñu ngi laa déglu right now. well xanaa advice leen gars yi bàyyi seen xel si góor yi ak góor yoo xamante ne gars yi dañ ñeme sëriñ like Cheikh <laughs> parce que moom daf ma ko won te mu ngi koy jëfu dafa gëm yi fi sëriñ na gars yi bàyyi seen xel torop ba xam nga góor yi tamit suñ la dee ut ni ñooy mel ak suñ la amee tamit ni ñooy behavior daf dee different mooy dañ leen bàyyi suñu xel rek maasi Cheikh moom fooguma ne am na si àdduna bi sax moom kenn rek la. Would you want keep friendship with him? No, not even his family. Why not his family? Because mun naa wax ne rek moo ma si dugaloon and moo xam na jikko Cheikh lu tax waxoon ma jikko Cheikh bi so I don't even want to talk to his family. Okay, um, again um such studies bi um because all talks ñëw na with your um eh, ex boyfriend ak yu demee noonu um with that distract you um, because um, ñu ne yow ak sa boyfriend bi ex sorry for saying this yéen a bokk school ak yu demee noonu. waaw ñoo bokk school moom su ma ko gisee naa koy nuyu parce que kooku def mosul may def lu ma naxaade Cheikh nit yoo xamante ne daal. ñu ngi ah, ñu ngi am jaama daal su ma leen gisee dinaa wax ak moom te fu ma ko romb dinaa toog wax ak moom nit yi nag lu leen neex ñu wax tase nit yi moom seen gémmiñ leen am yow yaa xam looy def rek. ok uh, thank you very much uh, finally rek uh, nga yokkal dara ci anything li nga xam ne fàtte nga ko wax and thank you very much sant yàlla mbir mi yëpp jeex na ku nekk dem doxi sa soxla. yeah damay sant suma friends yi and my family. dégg gaay taxawu neen ma gis naa lu ma leen jara since démba moom nelawuma sax I've been receiving calls messages from family and friends aw ma gaay seen fay but den nen bàyyi suñ xel rek nit yi den bon pexe noonu moom miti na daal but den dama koy sante yàlla tamit lu yàlla dogal la so foog ma enn ko tamit ba duma alawta moom bi distract ma sending na tamit to me because Ganyu Michael since Susuba, Suma Frenzy, especially soon um Ecomancer president be. Call Nama, uh, I really appreciate it. Suma lecturer be Mr. Baji, I appreciate him too. Because Ganyu Michael, you my honor, but stay home, but my fallen nitty. Madam continues my class. All oh my guys and fed out. That's how we end matamit. Issue say uh, because am um, coow lu bëri eh, jóg naa ne sa yaay lekk na xaalis ak yu demee noonu ne sa yaay daal eh, moo nekk di eh, jaxase diggante bi sorry for saying this xam nit ak yaayam moom. ok Cheikh jaxasekat la parce que man bu ma doon ut nit yi yëpp xam ne ne ñu ma xam yëpp xam ne ne like suma moom she is my closest friend musuma koy nëbba dara si suma àdduna lu ma munti da def man moom ñoo ko def so moom doom laa ba wut ma comme doom daf ma ubbil ah, daf ma woon bët yoo xamante ne ragalum ma ko soo Cheikh loolu la xam mu try mu séparé ma ak suma yaay soo gisee mu ngay def all these allegations parce que moom mu ne suma yaay daf ko wax ne moom lu mu bëggee man loolu lay def suma yaay daf ma doon encourage bu ma delluwaat sëy ak Cheikh waaye man dama bañ so maybe moo tax Cheikh wax ne suma yaay moo tax suma sëy bi and all that ba loolu affaire am la tamit xam naa daal suma yaay moom taxawu na ma moom it aw ma fayam dëgg um, pour confirm rek sa diggante sa yaay is normal now it's normal yaa amoon neen misunderstanding bu ma sëyee ak sëy si diggante bi but then now alhamdulilah taxaw na ma taxaw yaay yaa su métier moom laay gis su neexee tamit moom laa dee gis so ma ngi koy ñaanal rek mu yàgga fi ba ma taral ko daal Okay, thank you very much. Yeah, thank you very much too.